salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen di dalal ci seen site d' information senego point com tey nag ñoo am mbégte def déplacement ñëw ba mairie bu Yoff fas yéene waxtaan ak monsieur le maire Seydina Issa Laye Samb prétexte bi leen la mooy euh, l' appel de Seydina Limamou Laye bi ñu war a amal euh, ni ki suba incha allah mais laataa ñuy dugg ci waxtaan bi monsieur le maire dañ lay bàyyi nga nuyoo ak internet yi lay seetaan. waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu mboolem internetu Sénégal di leen ñaanal suñu waxtaan bi fekk leen ci jàmm yàlla taxaw leen ci seen mbir. ok euh, monsieur le mën nañ xam exactement nan ngay waajalee li nga xamante ni moom mooy xew-xew diine bi am suba. waaw ñu ngi koy waajale ak dal ak cër bi ñu yàlla jox jaarale ko ci askanu yoof ñu dénk ñu baatu yoof ci mairie bi ñu ngi waajit di xool la mairie bi daan def ñu xool yan anam moo gën a sell moo gën a baax ba askan wi gis ci seen bopp ba kilifa diine it yi dalal gan ñi aussi mën ci gis seen bopp daanaka mairie bi jëloon na engagement yu bari ak état du Sénégal ak comité organisation bu appel bi dañuy sant yàlla bi ñu yàlla dimbalee ba ñu matal ko alhamdulilahi bi alamin mën nga ñëwaat tuuti ci engagement yooyu. waaw daanaka xam nga commune bi mooy dalal appel bi daanaka ci tranche horaire maanaam ci waxtu yu gën a ëpp te gan yit fii la ñuy polariser wu ndax woote bi fii la woon ci yoof Eh, sang bu tedd bi di na Imaamul Mahdiw alayhi salaatu wa salaam fii lañ ko denc ci yoof donc engagement yooyu bokkoon na ci def des opérations de désencombrement maanaam yaatal mbedd yi ba oto ya fa nekk di gàllankoor dem bi ak dikk bi ñu mën ko fa jële ci anam yu dal anam yu sell waxtaan ci ak askan wi ndax defal nañ leen ay bataaxal yëgal leen ko fukki fan ak juróom balaa mbir mi def ne nit lu ñuy wooy yeesal bërëbu jàngukaay yi maanaam école primaire yi ndax ci compétence commune bi la te yooyu it commune bi di yeesal na ko wax dëgg yàlla ci wàllu cet ci wàllu désinfection ak ci wàllu bépp taxawaay daal bu tax gan ñi bu ñëwee mën a nekk ci jàmm ak dal loolu yëpp def nañ ko am na aussi lu ñuy liggéey ak service état yi ci mel ni service d'hygiène ak service élevage pour xaj yi dox ci dëkk bi service d'hygiène aussi pour ñu setal yenn béréb yi puudar dëkk bi ba wax dëgg yàlla yenn feebar yi mën Euh, dëgg ci suñu kaw ndax euh, nit moom fagaru daanaka ci faju la bokk donc loolu aussi ñu ngi si doon taxawu état bi bépp daal taxawaay bu état bi laajoon daal ci tënk. dëgg yàlla commune bi taxawee na ko alhamdulilah. alors en terme d'histoire boo waaw daanaka am na lu ñu mën lu ci luñ ci mën wax ak lu luñ ci mënul wax liñ ci mënul wax nag dafa yegg ci ngëm-ngëmu nit ki te ngëm-ngëm moom c'est personnel maanaam lu nit ki du dund la. lu nit ki di yëg la mais li ci am solo rek mooy ñun saa yu ñu xëyee julli dinañ ko ñaanal parce que jàpp naa ne teg nañu ci aw yoon yoon boo xam ne yoonu njub la yoonu maandu la ak yoonu doylu te loolu ci ay message am wax dëgg yàlla daf ci am suxat bu am solo daf ci am ndëgërlaay bu am solo bi cëpp solo it mu méngoog jamono it mooy jihaadul nafsi maanaam bañ topp sa bànneexu bakken du loo bëgg rek nga ca du loo yaakaar rek nga ne ca ndaxit jamono ji ñu toll daka daan wax gàtt tànk daf ci baax ak gàtt làmmiñ waaye it fexe ba bànneexu àdduna yi bañ a dominer nit ki maanaam ci dundinam donc loolu ci jàngaleem dafa créer suñu diggante ak moom relation de confiance maanaam ak kóolute gu mat ndax message am ñu ngi ci téeméer ak ñeent fukk ak ñaari at ba tey mu ngi dox te liñ naan dëgg moom du mas a fay lu dëgg nag du sax du jebbi du ami reen te wooteem bi tey sax na jebbi na ami reen ba jur ay gàncaxi gàncax ba jur ay àll ci réew mi ndax jëfam ju sell jëfam ju baax jëfam ju wóor yi nga xamante ne def na ko fi ba noppi jàngale ko waa dëkkam di ahlulaahi di ci am vraiment taxawaay. benn laa ci cité en exemple rek ci doxalinam bu mu fi samp muy asaka bi daanaka waa ahlulaay képp ku fayeku weer wu dee. ci sa li nga ñax di ci génne asaka. ak dimbalee ko néew ji doole ji. dem nañ tey ci àdduna bi ba ñuy gëstu ci wàllu koom ci wàllu lislaam fu ci mel ni Malaisie dem nañ ba asaka boobu ñoom dañ koy def weer wu jot nit ki génne ko. donc tey ay question la yu ñuy posé ci humanité bi ci àdduna bi mm-hmm. pour vraiment xool lu ñuy méngale doxinu jamono ak ni lislaam bëgg mu ñu doxee ko insha allah mm-hmm. ndax yaa ngi xalaat ci sa carrière lu euh, ci mel ni ay livres yoo xam ne wala nga juma waaw juma moom am nañ yéene bi mm-hmm. euh, ndax ñun ay tuyaaba la ñuy wër bëgg nañu def ci kaw suuf jëf joo xam ne ilaa yawmi diin daf ñuy fekk ci suñu tëraayu bàmmeel dafa ñuy fekk ba bés penc ndax dañ ñu fi wàccee pour jaamu dañu fi wàccee pour jëf lu baax moytu lu bon donc loolu it mbébét la mbébét la it ñu wax dëgg yàlla taxawal fi banqaas yoo xam ne it day dooleel diine waaw te loolu moom lu ñuy oowee waqf si arab maanaam loo xam ne da koy jël ci sa euh, coobare bopp jox ko askan wi jox ko umma bi umma islamique bi nga xam ne nag day jural njariñ mhm. lii di julliti di leen jàppale ci seen dundin ak seen nekkin mhm. pour wàllu teeri nag ñu ngi ciy xalaat pour xool message am ci jamono ji naka lañ koy contextualiser ci jamono boo xam ne mhm. njàngaleem dafa ñëw fu àdduna réeram ay mbir yu bari moom mu ñëw restauré lu bari lu ci mel ni justice ak équité parce que tey Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam dàq na lépp luy sant maanaam fii boo ñëwee amul ku sant mbaay amul ko sant ñan amul ko sant gay da ñëpp a maase sant laay mm-hmm. ndax li am solo ci àdduna mooy booy samp samp lu lay jëmale alaaxira te sant fii la yam ci àdduna waaye laay daanaka jéggi na àdduna ba fekk ji alaaxira te mm-hmm. loolu daanaka booy samp nag sampul weeru ci dëgg goo xam ne mm-hmm. ëllëg di nga mën a taxaw jàkkaarloog suñu borom te doo sëgg lu ci am solo nag monsieur le maire euh, a marqué ci waaw daanaka euh, euh, li ma gën a yéem rek. mooy woote na am na ñu weddi. Mm-hmm. c'est normal. Mm-hmm. ndax yàlla mi ñu sàkk sax ñëpp ànduñu ak moom am na ñu gëm am na ñu gëmul. Mm-hmm. te li ma gën a marqué mooy ba muy woote télé amul rajo amul. mais yàlla wommat na nit ñi ba ñu ñëw wuyu si ko ba tey appel bi ñuy def ay CRD def ay réunion nationale ànd ak état du Sénégal pour xool lu ñuy dalale gan yi. Mm-hmm. mooy li may wax rek dëgg moom. Mm-hmm. day sax. Mm-hmm. day jëb bi day amee reen lu dëgg nag du yàgg. waaye nag question la bu ñuy laaj rek. fan la jamono toll ci jàpp njàngaleem Seydina Limaamu alayhi salaatu loolu je pense la question fondamentale moom la ak du moom pour man weesu nañ ko sax. donc li koy dëggal mooy sax ak woote bi waaye fi ñu toll nag jamono mooy lan la jàngale njàngaleem ban njariñ la amal. crise bi am ci réew mi d'abord waxuma ci àdduna bi ci réew mi pour réew mi mën a tegu si njub njub bu amee nag mën a tegu ci dëgg dëgg bu ñëwee nag su ko mën a am mhm. fan nga am fan nga amale si njëkk Cambérène la wala Yoff naturellement boo nekkee xale dëkk Yoff naturellement jàmmalaay ngay njëkk dem période appel mu xumba lool nga dem xool dem ci bâche yi mais ziar bi ma gën a marqué ci sama àdduna xuntama la woon mhm. waaw xuntama Seydina Limaamu alayhi salaam nee na leeram def na fa junniy at. Hmm. donc bañ demee ba wàcc ci xunt bi parce que xunt bi euh, bari nay pàcc. Hmm. am na ci pàcc bu ñu yegg boo xam ne bañ fa duggee it wax dëgg yàlla marqué nañu ci yëg-yëg xam nga hmm. fois nag. nekkul looy mën a euh, wax looy yëg la. te wax dëgg yàlla loolu moom duñ ko mës a fàtte. waaw am nañ ci bànneexu ngëm-ngëm bu rëy a rëy rëy macha allah. ban zikr nga préféré laa ilaaha illallah bi waaw daanaka moom la ñuy gunge néew yi. Mm-hmm. moom la ñuy zikr balaa ñuy julli. Mm-hmm. bu ñuy tudd walla wala ñuy fas sëy mm-hmm. moom la ñuy wax. te loolu dafa ñuy delloo ci suñu borom. Mm-hmm. mooy li ma wax sànq rek booy wéeru wéerul ci dëgg. Mm-hmm. donc kalimatu laa ilaha illallah. Mm-hmm. jàppoon nañu ne mooy kàddu dëgg gi. te moom la ñu Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ndàmpatal. donc man moom bi ma ci gën a neex nag mooy bi ñuy gungee ñi nga xamante ne ñu ngi wujj suñu borom. parce que loolu c'est des moments forts yoo xam ne jullit bi lu mu gàtt gàtt gàtt war na remettre boppam en question. waaw ndax dee moom wax dëgg yàlla. Euh, day confirmer dund confirmer suprématie suñu borom ci suñu kaw ñun ñëpp. Mm-hmm. donc nit ki jamono jooju dafa war di fàttaliku digganteem ak boromam ndax matal na la ko war. Mm-hmm. balaa malaakal mawti di ko jël si parce que yàlla nag du tàggoo. Mm-hmm. donc ku dul tàggoo nag lam na sante na ca. ba bés bu koy jël nag ah. nga fekk nga nekk ci lu méngoog ay bëgg-bëggam. Mm-hmm. di santaat suñu boroom mu ñu jagleel tey ñu jàkkaarloo ak yéen di leen sant di leen gërëm di gërëm équipe municipale bi ñu dalal maanaam administration municipale bi di nuyu waa Yoff gépp di leen ñaanal appelu jàmm ak waa Ngor ak waa Cambérène. merci beaucoup أكثر الإنس والجن رسول الله إليكم أجبا دايلا أو يا مان